murid murid bu bu bu yàlla napp nga fekkee ko ko nga daanu leer ndax ndax ndax ndax sëñ Muntaxa moom ndeysaan nëbbu nëbbu nëbbu waaye mënut a nëbbu ndax yéen yi da koy feeñal ndeysaan ndeysaan ndeysaan mbàkke nitu nitu gi moom comme ni nga ko waxee xëy na hmm. ki dem bëtam dina lëndëm mm-hmm. waaye ki ki taxaw tey xool te seetlu jaar jaaram la ko yàlla fekkeeloo waaw dafa amul lu mission bu mu war a joué mooy wàccaay gi rek. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. mooy li ngeen nekkee tey. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ci askan wi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. moo tax euh, boo boo yéexoon kii rek man dama dama. <laughs> wallaay wallaay wallaay ma ci sago. ndax sama sëriñ. sama sëriñ laa toogal mu oo ko téléphone. boobu nekkul sax xalif mu nga poroxaan. Uh-huh. mu oo sëñ Muntaxa téléphone ne ko papa uh-huh. mu ne ko waaw mu ne ko ah fii de am nga fi sët ba nga xamante ne bëgg naa nga ñaanal ko uh-huh. ndeysaan mu ne ma eh, yéen de yéen a ñu war a ñaanal ma ne ko ah déedéet waay sëñ bi mu ne yéen ñi nga xam ne da ngeen tukki te lépp la ngeen fay am da ngeen koy indi fii yéen yéen a ñu war a ñaanal. wallaay la sëñ. waaw keroog nag ba tey jii nii ma ne daal eh, sëñ bi man de fu ma toog rek dama koy ñaanal wax dëgg fa yàlla. te ñaan bi day mel ni tengs rek ndax boo ko dóoree ci mur bi day dellusiwaat ci yow rek. maa wax ah. xam nga kon. Ah. boo ko dóoree bu baax mu dal ci yow bu baax boo ko dóoree ndànk it mu dal ci yow ndànk rek. waaye nañu gaañ. <laughs> waaw honorable de honorable député Moussa Diakhaté lañ amoon noonu eh, di wax waa TikTok tapote leen ndax tey da ngeen am honorable député mu indil leen la nga xam da ngeen ko daal dégg rek ci mbedd mi tey jii dina leen ko leeral. waa Facebook yéen it ñu ngi leen di xaar eh, honorable député war na bu ngeen dajalee lépp war na romb mille personnes yu koy seetaan donc nag eh, parce que seen njëriñ rek lay doon. Eh, honorable député Moussa Diakhaté président commission des lois à l' assemblée nationale bokk Benno Bokk Yaakaar parti politique am di Benno di bokk gis-gis yaakaar naa juumuma. déedéet waaw <laughs> waa président ñu dem directement rek parce que gars yi xam naa ne ñu ngi joxe ay kër yu bëri ndeysaan joxe leen kër pour honorable parce que honorable nag bu ngeen joxewul ay kër du waxtaan waaw euh, honorable ñu waxtaan actualité ak waa jaspora waaw honorable euh, tey ñu invité la pour que sénégalais yi am lu leen leer ci actualité bii ñuy dund benn bi mu nekk lii ñuy wax déclaration de politique générale lan mooy genèse bi ak lan moo tax Ousmane bëgg faa ñëw beneen bi mooy ah lii ñuy dégg naan assemblée nationale dañ koy tas date bi ndax mën nañ koo tas laa ñu yemagum foofu en attendant ñuy ñëw ci yeneen laajte. jërëjëf déclaration de politique jamono mhm. ba muy njëlbéen si jamono yi mille neuf cent mhm. déclaration bi daan tax da mhm. ngay def déclaration ba pare ñu door a moom lañ leen wax déclaration d'investiture Manam pour nga nekk premier ministre bi da ngay def déclaration d'investiture ba pare maanaam muy déclarer pour wane ci nga jëm ba dalal xelu nit ñi soo paree nag ñu door la tabb fa la tàmbale yéene ji yilla mooy ki ñu tabb wala ñi fi ne ñu wane yoon wi ñu nar teg ci réew mi xàll yoon wi wan ko nit ñi loolu mooy déclaration de politique générale jamono dem nag ba léegi nag ñëw ci ministre yi premier ministre bu nu fal nga war a ñëw wax nit ñi yéen ñi falu lan ngeen naral ndax diggante sol ak sumeeku yaramu neen xaj na ci diggante bi ngay nekkee ci opposition bi di foog ak dige ak bi nga yoree réew mi du bokk moo tax ñu xalaatoon ko defar ko constitution ni tëgg ko itam nag def ko article maanaam déclaration de politique loolu mooy yëlle ji waaye ma wax ni du coobaray premier ministre du lu ko neex wala lu ko naq bi charte la bu ñu teg ci ndoddam ki ko fa teg mooy kan mooy yoon bi gën a kawe ci yoon yi di constitution ni ko bu ñu la faree rek da war a def déclaration de politique générale ku am dégg nag da ngay xam ni mu ko ci wax mu baral doonte nag joxu ko ci dara ndax fekk ñu fi nu jëm dina jafe nga mën a def sa même débat d'orientation budgétaire wala loi de finances rectificative ndax kat suñ xamul yoon wi looy far farlu mën naa réer looy bëgg mën naa bañ a dem looloo tax constitution def ko pour moom mu donc jàppal ni déclaration de politique générale mooy xàll yoon wi ni dina am idée ni dina am programme ni dina am projet waaye soo méngalee li nga xelaat ak li fi ci ngay génne yoon wi nga bëgg ñu aw comme ni ko plan Sénégal émergent président Macky Sall andi woon moom nag mu jëm ba 2035 mille trente cinq xàll yoon loolay tax bailleur bi ki lay natal wala ki teg ki natt su fekkee ni teg la yow saar nga koy jiite. Mhm. nit dara danañu xam ndax saar ku jub laam ku jubul. dëgg ndax saar ku mandu laam ku mandu balaa ma ciy dugal sama dërëm. Mhm. noonu la mel nag su ko defee buñ ko nattee rek jàpp ni déclaration politique taarix la ci réew mi buntu la yoon la bés la daraja la ngir ñu xam jëmukaayu réew mi lim ñu fas yéene mi ne orientation yu mag a mag yi. après nak ci ngi dooro dugg ci orientation sectorielle donc déclaration de politique générale dal c'est un grand moment de communication c'est un grand moment d'orientation bisu yedd la li nga digon nit ñi ngir ñu xol su dugg kon ndax la ñu nara togol toggal nar naa neexam deb xam naa tour ture ma sànni <laughs> wa dafa melni ni man buma déggé déclaration de politique générale ci ni nga ko expliquer dafa melni la nga waxon ca campagne ba mom ngay ñew nak deggal ko fi ni ci kanamu député yi nga xam ne dañ leen fal comme niñ falee président bi. très bien loolee la waaye nag bii mooy gën a bii xam nga bii da ngay wax rek. bii mhm. nag di nga wax. Mhm. xam nga ci jëmee da nga koy jël pàcc ak pàcc. Mhm. lii nga wax la rek la nga diggee woon ca campagne ba. ba tax nit ñi ànd ak yow. moom ngay ñëw dëggaat mu mel ni waataat la rek waataat la ngir ñu gën laa tënk. gën laa ñàkk mën laa topp loolay tax ñi andul ak yow gis-gis ñi bëgg challenge sa xelaat mën a andi ay manquement xool ndax la nga waxoon mën naa ne bañ a mën a ne donc weesu nañ fi mu toll ni intention ci action ñu ci action waaw euh, déclaration de politique générale waaw honorable dans l'histoire du Sénégal comme ñu ngi ci jeunesse ba tey histoire au Sénégal lii mës na fee am déedéet mosul am luñ de lu guleeg lay am bu dee am nga seetlu waaw Giga kame ni le prezident Ablai Wadi gel nou ngour ki. Waw. Depite kon, ben nan majorite bo kame ni, majorite sosyalise le. Mou mou. Mou an premier mezi boutoudou, Moustapha Agnès. Waye kom re ou mi, te kou yi doundel mou yi budget. Waw. Depite mi, prezident Ablai Wadi, chan la gam, chan la gam re ou mi, wastan at nifine kon, mou yi le prezident Diouf at majorite pou mamoun. ñu leen dem nañ élection yàlla def na man maa falu waaye réew mi du sama yëf te fii ñu jëm bu ñu demee ci ay élection législative benn dañoo jógee ci élection te jógaguñu te ay milliards la ñaar mën na jur tolof tolof ba ñu yor seen xaalis téyeku dama bëggoon ñu waxtaan ci mbiru réew mi xool nu ñuy doxalee boo voté budget bi ba budget bi pare bañ def a de finances rectificative mu door a jàll looloo tax bu dee am nga seetlu waaw Moustapha Niass ñëwee def déclaration de politique générale. amul mm-hmm. question. Mm-hmm. ndax oh. boobu fekk na Ablaye Wade we ah. faale fulaal naw leen ñi fi fekkoon. Mm-hmm. ñooñu itam ni ko doonu gën a gore ci bëggum réew mi soo ñëwee njëkk ñëw bëgg ñëw ak yar dal di ñu woo ci luy ñoŋal réew mi dañu cee fekk ndax de Senghor à Abdou Diouf ci loolu rek lañ nekkoon. dëgg la léegi euh, ñu ñëw ci. Euh, comme euh, dissolution bi waxoon naa la ko mooy dissolution assemblée nationale bi ñuy dégg balaa ñuy ah. dem ci beneen actualité ñu des ci assemblée ah. léegi dissolution assemblée boobu noonu kaña la mën a nekk ak ndax mën naa nekk ak nan lay demee ak lan mooy conséquences yi buñ ko dissolu buñ ko dissoudre ci jamono ji ñu toll. Ah, ok xam nga dissolution assemblée nationale. Mhm. constitution daf ni. Mhm. ñu dawalé ñaari at ba uh-huh. président de la république bi ci toog sañ na ci coobareem. Uh-huh. bu président assemblée nationale ak uh-huh. conseil constitutionnel. me déclarer dissolution de assemblée nationale. waaye décret bi assemblée nationale. On war a jàpp datu élection législative yi di wara ñëw. te warta romb gën kaa bëri 60 jours à 90 jours asafullah waaw entre 60 ak 90 jours ñetti weer la weer ba ñetti weer la mën a yem hmm. waaye foofu mu am sew sew boo demee ci suñu loi électorale dañu kat élection balaa muy a def foog ñu def parrainage 85 jours juróom ñetti fan juróom ñetti fan juróom hmm. ñetti fukki fan ak juróom mu mel ni techniquement maanaam juridiquement seen coobare ñoom buñ ko tasoon le quatorze septembre bi ñu jëm. Mhm. ñetti weer yi war nañ ko def waaye coow li mooy su boobaa danañ jalgati loi électorale. ah bon. waaw waaw parce que loi électorale dañuy foog ngeen def parrainage quatre vingt cinq jours. Mhm. soo defee parrainage foog ñu évaluer parrainage ci quatre vingt cinq jours la. génne résultat yi. te mhm. yow constitution bi ne la ah mën ngaa tas de waaye sëñ boo ko tasee. munoo weesu quatre vingt dix jour te nga organiser o élection ndax décret bii tas décret boobu mooy convoquer le corps électoral pour ñu dem ci élection. Hmm. kon mu am problème mu délai problème mu temporel amu comme confrontation juridique waaye loolu mooy li gën a néew li gën a sedd. ah bon. ndax soo defulee déclaration de politique générale. de uh-huh. fond bi yor sama alal mais du ma ko sa réew. waaw surtout parce que ki andi alalam. waaw da koy dugal fu leer. Mm-hmm. wóor. Mm-hmm. boo waxee sax ba amaana ne du dugal lépp ma boo wax la. <laughs> bu boobaa nag dana tardeel danañ am problème jàppal ci lii ma lay wax. waaw maa ngi dégg. énergie. Mm-hmm. dana am énergie mën nañu àgg sax ba am problème mu payoor payoor. ah loolu dina doy waar. waaw waaw parce que li ma wax la rek xam nga àddina ni muy tëddee lii ma wax du lu may créé. waaw loolu kay. àddina moo ni tëddee yow yaa ma gën a xam ni. foog nga wax leen fi nga jëm. waaw. barki dem boo Ndiaye bi ñu demee ñoom bi ñu door a falu dem FMI. andi seen i xaatimu bopp. waaw. FMI da ne lii tegal leen ma ko nee ndax amagu leen programme bu leer dem leen ngeen jël li fi payé sa bàyyi woon. moo tax ñu am la ñu jot a am xam naa dinañ ñëw ci biir. waa dinañ ñëw ci <laughs> kon kay nga jàpp ni. ñax la bañ a def. Mhm. ak assemblée nationale bi lii la mën a jëral. Mhm. yéen a ji nag li ci ëpp. Mhm. li ma foog ndax bu dee dégluwoon nga président. même day tas. waroon nañ ànd ak sago. waxtaan ba weesu budget bi. waaw. waaye du problème mu budget Ousmane ragal. moo ragal la ñëw assemblée. moo ragal a ñëw assemblée. Eh. te comme mooy patron wu Jomaay. Eh. li ko neex rek lay def te Jomaay di def. mais aussi Jomaay bu de am nga diglu. Hmm? bi mu defee cent jours yi boo déggee waxam. waaw. assemblée ngi waxtaan ñu ngi waxtaan ak assemblée pour que ñu régler règlement intérieur bi ce qui est déjà fait. waaw. même bu fekkee ni bañ ko bindee. Hmm. def na bu amee fukki fan yoon dañuy soo bindee président bu loi ba pare. ca yar ga ca teggin ba le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop. waaw. bind président de la république ne ko ñun de bi ñu waxtaanee suñu biir defar nañu règlement intérieur bi delloo ko na mu meloon. ma la laaj sa xelaat. Hmm. adduwul tontuwu ko. jéggi ko dem laaj conseil constitutionnel ne ko kañ laa mën a tas mu mel ni day dafay am lu muy gaar waale Mame Diop. waaw daa jiitu oto bi. te war koo dawal voilà mais yoon yoon moom may assemblée. il hein? est président de la république. Mhm. ci loi organique boobu. bu mhm. fekkee ni tontu ko ci fukki fan bu dee du procédure d'urgence su dee procédure d'urgence juróomi fan la ci fukki fan. waaw. assemblée sañ na continuer la mu doon de looloo waral ñu convoquer mardi session extraordinaire pour valider le nouveau règlement intérieur kon nga jàpp ni. Mhm. coow léegi blocage bi. keneen ku la wax leneen lu dul Ousmane Boukat ranga la ñew perturbé le wa honorable man man duma and ak yow fof Ousmane Ousmane borom lam waxon keur Massar. Ousmane bi nga xamante ne <laughs> mo moo taxaw jigen Ziguinchor ñu wër ko ay saaku suuf Ousmane mom ragalul de. am olof lu muy wax. <laughs> ngay xamni neex na nga jakarlo ah waaw loolu dëgg la. <laughs> am na yor sa micro di wax. Ah. nga ñu jiñ la digganteeg benn soxna ñu ne ñëwal tribunal nga ñëw. Mhm. ñu jiñ la sa digganteeg Mame Mbaye Niang ñu ñëwal tribunal nga ñëw. <laughs> loolu moo lay wan ni confrontation mën na énoncer. Ah. mën na attaquer mën na ah. calomnier mais nanguwul ñu challenger ko. ah ndax kat fee ci assemblée. Mhm. juróom ñetti waxtu ngay taxaw di wax jàmmaarloog ñoo xam ni gënoo leen xam réew mi mm. gënoo leen jàng ëppoo leen xam-xam ñu war la challenge su fekkee ni mënoo te te dégg naa de dégg naa day nekk ci français ak ci olof maa la wax li loo <laughs> xam ne nag bu ñu la ñetti fooy booy liir gat <laughs> boobu de day waree parce que du caaxaan képp koy premier ministre Moussa jaar assemblée nationale ah. dem na semaine boo xam ne ni nelaw <laughs> day oo oh, yërim rek mu jàppale ko Cheikh Yérim Seck. waaw dégg naa mu ciy wax waaye da ngay jàppale. <laughs> Eh. ku mën. Eh. wala ku nangu xam ki mënul amul problème. waaw. ki mënul ba pare xam na mënul amul problème. Mhm. ki xamul ni mënul. di def ni ku mën koo koy problème bi te ñoom noonu la ñuy def. <laughs> wa mos ngaa gis moo ndax mos ngaa gis un débat. Eh. contradictoire Ousmane Sonko toog. naataangoom bu ñuy natt ci xam-xam toog. xanaa bi mu defoon wal fajri bi muy génnee protège bi naan passeport la yor nii moom moo bëggul. non boobu kat ma waa Walf la woon. <laughs> boobu kat yow xam nga la ligne éditoriale de Walf à l'époque. waaw waaw waaw. <laughs> voilà ndax mos ngaa gis conférence de presse mu ñëw ni journaliste yéen lay déglu. déedéet déedéet.

ça moom c'est sûr. moo ko andil vaar yi moo yi parce que li ñuy wax tey ak li ñuy wax ëllëg du bokk. waaw ça c'est vrai. wala mu wax loo xam ne nii soo ko seetantalee da ngay xam ne kii xam-xamam wérul. néew ma du inspecteur des impôts bu néew ma bu baax de parce que xaw ma dara ci MPS des impôts. <laughs> waaw waaye ci wàllu état nga xam ne nii lu mu néew néew tàggat nañu ci Ablaye Wade ba tey. waaw. yàlla def ñu jaar ci ay structure jaar ci ay appareil d'état yoo xam ne nii amoon nañ ci ay ndombol tànk mm-hmm. soo ko déggee mu wax soit xamul dara ci état wala il était de mauvaise foi ok léegi honorable léegi ah. euh, ñu ñu ñu écho foofu xam nga comme yow moom euh, xam naa xam nga tur yooyu quoi parce que booy Kaolack nga dégg na <laughs> ñu waaw waaw ñu <laughs> waaw léegi ñu éco côté boobu noonu léegi nag ñu ñëw nag ci lii nga xamante ne moom mooy euh, lii mu mujjee wax parce que xam nga li mu wax dafa bëri suñ fi naree toog di ko live lépp boo moytul euh, yaakaar naa ne euh, quinzième législature du mooy waaj ñëw fii lañuy fekk donc waaw <laughs> léegi nag ñu ñëw ci dëkk bi yéen honorable lu tax ngeen a dëkk bi. ban dëkk ruiné. ah Sénégal premier ministre bee ko ah moom moo ko wax de premier ministre bi nee na le pays en arrière moom moom moo fi waxoon ni vingt neuf milliards Mame Mbaye da ko luubal bi ba tey dégg boo ci résultat de mu ngi yor affaire yi ci taabalam de nee na ñun daal xam nga boo ci boo ci nguur di jiñaate boo yoree nguur te génnewoo turam la nga doon wax ay soso du dëgg ah loolu lay nirool de léegi eh, nag riin dañ koy mhm. natt cim réew lépp lu ñuy def guddi gi demal ci transport waaw ah. sama xarit ba El Malick dafa jëfur keroog ba mu demee xooli teer ba teer ba ba mu so ba mu jaaxlee ca tabaski ba te ma ko ciy ma ko ciy sant itam def na effort bu baax foofu mm-hmm. bisu Macky Sall Dakar dem kii la jël liggéeyee ko gars yi dem tabaski ji ñëwaat te màggal gi moom lañ fas yéene def am ceeg transporteurs yi mm-hmm. tey dañuy laal TER dañuy laal BRT dañuy laal Dakar dem dikk dañuy laal Sénégal dem dikk mm-hmm. te ñu ngi te waadeloon nañ au niveau des des des régions ay aérodrome ah. avion yi di wàcc fépp waaw ah. looluy vision jàppal jàppal benn waaw bi Macky Sall toogee ba léegi képp kuy fonctionnaire compala mhm. compalaat la ci salaire waaw loolu moom dëgg la le ñu fay ñu fay ñu fay ñu fay la trente ñu fay waaw bi Macky Sall toogee ba léegi en terme accès à l'eau à mhm. l'électricité mhm. yokku na néew ma lépp baax ndax loolu yàlla rek ko mënta de ko kese waaw

dañu daan lépp parce que signature réew mu ruiné bailleurs yi dañu lay forcé nga jëm xam nga ci lan dévaluation. waaw. dañuy ñun lu ñu lebaat di nañ ko ñoom bi ñëwee ci kaw fukkale sax nañ ba lépp lu ñu ëpp lañu waroon wax suul bukki suuli bukki boo demee ba pauvre ci loolu ngay dugg <laughs> waaw. ana réew mu moo am Sénégal. Ah.

yoon yaa ngay defaru lii mooy développement lii mooy gis-gis Macky Sall dafa tabax Sénégal bu bees ñu war a góor nag jëm ci Sénégal bu bees. yaa hmm. ngi dégg bu baax yow rek laay déglu ngay. <laughs> xoolal fi réew mi tolloon. waaw. demal jam ñaajo. Hmm. jëlal xale yi jàng. Hmm. ci wàllu formation. Eh. ci walu financement mhm. jigen ñi dégg maa koy dégg mu naan dina xale yi dem nañ dem ci ay dombo ca der mu financer leen waaw bu ñu réuni woon der dana financer ah loolu moma ma jaaxal sax man mi xanaa bala ngay roggante kay sa mbootu jot tan <laughs> lañ ñoom géem xam nga lu ñuy waajal nit ñi ah. Sénégal bi xamé ni amuñ projet ah échec la ñuy ut prétexte léegi ok magistrature xoxatal ñenn ñi neen mënuñoo def dara ci réew mi parce que réew mi dafa nërmeelu moonte keroog ba ñu jël jël réew ma fan ya ñu jëlee réew ma mm. seen discours tey may laa jën waa diaspora ngeen bàyyi ci xel déglu ko waaw loolu kañ diaspora moom pare nañ ci yéen kañ yéen ci des yéen waa Sénégal non xam nga xam nga bu si diaspora pare moom ma ma yërëm leen eh, pare pare nañ ci réew mii di Sénégal réew mii di Sénégal <laughs> waaw ku ko nangoo ku ko nanguwul waaw juróom-ñetti diaspora ñu ne pare nañ xaw ma yéen nag. ci yow bu yeewoo say mbokk pare ci yow. ah ñun de pare nañ ci. Ah, kon nag li réew mi itam. xam ah. nga déggoon nga fii. Ah. ñun dañoo moderniser kër diine yi. ba mu gan ñëwee ci kër diine yi bu demee toog fa la fa xew la xew Tiwaawoon. Mm-hmm. xew Touba war a xew yëpp jërëjëfee Macky Sall am na dañ monte ñu doon saaga xas xam naa ne biñ ñu demee Touba wala mm. Tiwaawoon war nañoo rus de. ah bu bu mag sax loolu kay moom honorable eh, te ba léegi. ba ah. léegi boo xoolee seen caay boo xoolee caay caay bi. Mm-hmm. bi président de la République demee. Mm-hmm. te xaalis bala dem. Mm-hmm. kër gu ne day am buntu kër. waaw. waaye moom ba mu demee ndax ci xaalis bala dem. déedéet. ba mu demee Tiwaawan ndax ci xaalis bala dem. déedéet. kër goo gis gis nga njabootu El Hadj Malick gi. politique mënta muus ba tas ko. xalaatuñ ko sax. njabootu maam borom Touba gi. ku ko bëgg a tas yaay tas ni rafet pour wane ni li ñuy def. Mhm. ba léegi ci jëf ngay gis cette volonté là. Mhm. kuñ fi Musaana Fall ministre premier ministre. dem nga seeti xalif généraux yooyu tàllal leen seen loxo ñu ñaanal la seen barke maam Sénégal. wallaahi. dem ci làbbe bi tàllal ko sa loxo mu ñaanal la loolooy Sénégal. way mais moom daa jaar beneen yoon heureusement muy moom ndax moom lépp ma particulier mais kon yaakaar naa yaakaar naa ne sénégalais buñ la dégloo eh, li ngay wax yëpp waa région ñu ngi koy illustrer eh, di wane le terre di wane les ponts di wane les autoponts di wane Macky Sall muy jongle fii bal ak ay kubam yaakaar naa ne wane na ne dëkk bi ci kanam tuuti dinaa wax dinaa jox Ousmane Sonko raison lan moo tax dëkk bi ruiné yaakaar naa ne ñii seetaan toog leen xaar tuuti dinaa leen wax Ousmane Sonko fan la doon waxee mais sénégalais yu bari dégguñ ko.

Eh, Sans wax naa la ne la dissolution assemblée nationale yan conséquences le mën a indi ci dëkk bi ma gëna a sama question parce que damay dégg li ñuy wax DOB moy eh, le débat eh, je sais pas budgétaire orientation budgétaire ou lan nan ngeen koy woyé débat d'orientation budgétaire ok débat d'orientation budgétaire. may dégg nag parce que musuma nekk député may dégg ne ci nit ñi ak ci député yi ku mel ni Moustapha Diakhaté suñu euh, mag suñu idole suñu papa muy wax ne eh, bu ñu tasee assemblée ci période bii ñu toll ndax est-ce que dina baax ci sénégalais yi ndax sénégalais yi ñu ngi ci coono ba nga xamante ne siggeeguñu ci coono boobu noonu ndax suukar amatul léegi suukar vanille la ñuy ataaya donc courant mu ngi xuy xamat est-ce que dinañ am budget bu mën a continuer ba élection yee ñuy jëm ba quinze législature yi taxaw yow yow ñu ngi commencé am problème ngay wax dàq fële dañu war a def loi de finance rectificative a ah, acca boobu kon continuer <laughs> dañu war a lim xam nga suñu nattee woon Macky ak le premier ministre Amadou Ba biñ fi nekkee nguuru Macky Sall dafa am na ñu nattoon mhm. waaye ñoom bi ñu ñëwee am na ne luñ gisee mhm. li fi nekk gum dañ ko war a natt. def loi de finance rectificative su amul débat d' orientation budgétaire mooy li ñu li fi ne ki ñu ko jëmale wala li ñu soxla.